aousubillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñi ngi leen di nuyu te di leen nuyoo fii ci jumaa ji ci turu daayira muxadimatul xidma ci njiital sëriñ Afia Buso di fas yéene fàttali suñu bopp ngir li nga xam ne moom lañu ñu dëgmal muy waajtaayu màggalu Tuubaa su jubu see nag kenn ku nekk xam na ne jumaa ji barab bi ak penc mi dafa laaj waajtaay woo xam ne eh, bu weeru safar teroo lay doon ak woo xam ne ci biir màggal ga lay doon ak loo xam ne ginnaaw màggal ga lay doon la ca jiitu nag mooy képp koo xam ne membre Moukhaddamatoul Khidma nga te nekk ci biir réew mi wala nga nekk ci jaspora bi la la ca war muy la la ca war ci saw sas nga xam ko te teel koo waajal ndax jumaa ji incha allah su weeru safar dana ñu def entretien général boo xam ne lépp lu fi piil wala lu fi ventilo wala lépp lu fi yàqu rek danañ ko defar te jumaa ji li fi nekk ci ay piil wala yu demee noonu rek daanaka mat na ñetti junni ëpp wala mu ëpp ko kon loolu fere yu bëri la kon su ko defee loolu moo tax nag suñu jàmbaar yi nga xam ne liggéey bi naka jekk ñoo ci ànd ak ñun muy waa diaspora bi euh, mën nañ cee njëkk tudd waa fondation mu Muqaddimatul ma ci njiital sëriñ Amsatulaam sëñ Seex Jonn na Maymuna soxna Maam Jaara Fay ñu ngi leen ciy soññ ci xam ne màggal gi jub si na di soññ it waa Afrique Euh, mën nañoo teg soññe bi ci sëriñ ma fëri Ndiaye ngir moom mi nga xam ne mooy coordonnateur général bi waaye fu mel ne Guinée Conakry Côte d'Ivoire Mali Gabon euh, Togo euh, ba ci dëkk yooyu yëpp ñu ngi leen ciy soññ ñu xam ne màggal jub si na ñu soññ seeni cellule ni doonu waa Europe ñu jël soññe ba teg ko ci loxol sëriñ Assane Diop mi nga xam ne mooy coordonnateur diaspora bu Europe muy waa Espagne sëñ Baye Dame Lo mu Cheikh Moustapha Al Karim ni ki waa itali Euh, sëñ Ibrahima Jaay Xasida ak sëñ Daaru Touré ni ko doon waa Belgique sëñ Abbas Dieye ni doon waa France euh, ñoom it fàttewuñu leen sëñ Amdi Mbàkke ñoom ak euh, coordonnateur sëñ Pape Ndaw ni ki noonu tamit bel ni ki noonu tamit Hollande wala Suède Danemark ba Turc Allemagne Norvège Portugal dëkk yooyu yëpp ñu ngi leen di soññ ba ci sous-région bi Afrique ak dëkk yëpp fàttewuñ kenn dal ñu xam ne daal màggal jub si na kon membre yi nga xam ne ñooy membre daayira Moukhaddamatoul Khidma te nekk ci bitti te yor ay cellule daa laaj ay addiye yu jëm ci entretien bi ak waajtaayu màggal gi dëgmal si na loolu nag dafa laaj fere yu bëri jumtuwaay yu bari ndax waxuma la entretien bi ñu waajale màggal gi biir màggal gi daanaka juróom benn téeméer wala juróom-ñaari téeméeri nit danañ fi nekk fixé fi te ñooñu dañ leen a war a waajal nit ñu màggale ni ñu màggale seen i kur muy fere yu bëri kon loolu ñu ngi ciy soññ ñëpp euh, ngir lépp loo xam ne daal euh, ni ñu waajale suñ kër yi xam nañ ne barab bii moo gën a yell ci loolu moo gën a yell ci waajal ko moo gën a yell tamit ci dundale ko niñ koy dundale ci suñuy kër kon te loolu lépp euh, ñun ay soldaari sëriñ bi lañ yoo xam ne sëriñ bi moo ñu digal ngir ñu nekk fii ci sàmm wormay barab bi ak di sàmm di saytu entretien bi niñ koy defee ci jumaa ji noonu lañ koy defee tamit ci euh, armeel yi ak armeel yu bàq ya muy laaj ay jumtuwaay yu bëri kon yal nañu yàlla tabbal rek ci bayit yi nga xam ne sëriñ bi ñaanal na ko képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci jumaa ji euh, tey ñu koy faral di wax muy suñuy bayit yu ñu ndamoo nag muy wax fir li man banaw bina en rafi wax fir li man amarahum bi jamih wala jamihi man ahanahum ala bina ihallasi bi fadlika tala yal nañu yàlla dugal ci foofu te yàggal fi Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ñaan suñu borom mu nangu liggéey bi te defal ñu tawféex asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.